ñepp dañuy dut ci Khadim Ndiaye Abdoulaye Diallo chaque jour dañ ciy wérante kan nga gis né mom mo wara assurer suñu camp bon pour man xarim ndia mo wara tax ah, ndax mo gëna performant mo ëpp compétition Abdoulaye Diallo amul compétition ça fait longtemps muurul pour man xarim ndia mo wara gol góol débat sax dañ mo ne ko préyo góor instant xarim jaay njaay yan kii la meuna def lan la def ba meuna jël place am instant ni wa mais moo nekkoon premier goal am blessure gëj a ñëw gëj goal amul compétition xarim jaay amna na compétition club am mooy titulaire et puis amna na expérience quand amna fit pour man moom pour man bok mo mo wara taxaw ci gaay wa ah, pour man sama gis-gis xarim jaay la ci wara tek tax xarim jaay parce que xarim jaay moko ëpp expérience ko do bobu ko xamna xamna xadim yag de yàgg quoi genre compétition yi xadim mën na si apporter lu bëri parce que dafa mën événement quoi mais amna na genre yu joueur yo xamné ne soxla guñ leen si terrain bi quoi euh so demee amien ci clubam mi ngi fay def différence genre mais genre Mame Birame djouf yo xamné euh cette année ci gisuñ lu bëri ñu mën nañoo toog xaar quoi ñu jox joueur yo xamné ne ñu ñoo gën agressif si terrain bi ñu jox lu dernier mot ah ba di wax bonne chance au Lyon nag te xam naa si kaw sa kanam te amna ci si yaakaar si ñoom incha allah rabbi